waaw waaw jërëjëf jërëjëf mbooloo mi xarit sama sëriñ sëriñ Ablaye Gueye avant may dugg si politique bi xamante nañ bu baax a baax di ko sant di ko gërëm ak aussi sëriñ Muniru mu doon sama xarit di ma yàgg topp balaa may tàmbali damay nuyu waa Jaxaaw yëpp maa ngi nuyu aussi mon frère Thie Kouyaté ak Alir lay wax di nuyu ma sœur mère Assou Guissé mun naa wax tey yàlla bu defee lii tey moom si moom la ko jaarale di nuyu aussi mon frère nga xam ne mun na wax moom mooy bay Fall mouvement bi mooy Ali Mbaye di nuyu ñu fi nekk teewee yëpp mbokk yi vraiment lii tey wane na ñun nag dañu jóg di liggéey ngir askan bi li liggéey suñu gox dama bugg a naxe mbaay dafa jeex mbokk yi ñun dañu jóg pour jàppale son excellence le président Macky Sall ñu xaaruñu d'abord président def effort mais ñun dañu jël fekk si ko parce que ay gor lañu ñu jël suñuy siège dëkk bi jaxaaw biir maggee bi jaxaaw xam les problèmes de jaxaaw moo tax ma ne ko mon frère Thiey ma ne juumoo de lu tax nga ànd Habib bi nga xam ne ay gor nga àndal ñun lu ñu jiital mooy Thiès l'unité ñu mooy Jaxaaw ñu Médina Fall ñu président son le président Macky il est en train de tout faire mu ngi def lu nekk biir Thiès émergé léegi nag ñi nga xam ne ñoom la jox tànk ñoo war a émergé Thiès parce que bu ñu xoolee Thiès li fi nekk jar na coow jar na wax l'employé là mais le président mu def effort si loolu kon dañu wax ni ne weddu gisul ñun li may wax rek moom frère Thié ñun amuñu ji di wax dañu jëf léegi léegi rek gis ngeen ko léegi keroog bu ñu njëkkee def suñu premier lancement li ma njëkk def mooy dama may 204 mutuelle de santé jaxal laa ko joxe et puis yamul y fani di ñëw sa ni formation en leadership en sérigraphe et en solaire Moi, c'est Ali mané na mon frère Thiè danañuy fexe former jeunesse suis yi. si aussi mon frère li ñu wax accompagner les femmes parce que je pense que même commencer nañ ko si walu formation savon de am na fii ay association des femmes yi fi nekk encadré nañ leen ba actuellement di ngi demal seen bopp parce que bés bu nekk ñun nga koy may nga koy may jën da nga koy jàng duñu nappee jën donc mbokk yi li may wax ñun politique de développement nañu def politique concrète nañu def comme son excellence le président Macky Sall lu mu ko waxee li may wax toujours le président bul tontu bul tontu yoo jëfal rek ñun nag li mooy suñu avocat mooy jëf moo la keroog maa ngi toog di ree kenn kii xam ne maanaam c'est un frère mu ne mouvement ànd soxla Thiès mu ngi doog a juddu xale la ma ne ko ndax la boobu mais xale bu xam ne mu ngi doog a juddu mais dafa jóg di dox xale bi raamul mbokk yi ñun xam nañu les problèmes Thiès waay yi on est des gens sérieux des gens qui ont intérêt Nous, nous ñu askan bi moo tax keroog du la vie. toujours un waxti président je bi muy inauguré l'IBD. devant tout le monde Je le président Je suis ma ko na nga doomu suis la président mu ngi bàyyi xel bu baax Thiès xam naa du ci lool mbokk yi di ngeen dégg ay nouvelles yu baax si wàllu emploi Thiès waay li may ñaan rek mooy képp ku xam nga jege nga président nga jëkk Thiès boo toogee président na nga ko wax lii nga xam ne moom la Thiès di dox. lii nga xam ne maanaam moom la Thiès soxle parce que président Thiès moo ko ñor saa yu même du toogee conseil ministre am na ñenn ñu xam ne duñu la bàyyi fan dee leen wax ak à Thiès qu'est-ce qui se passe là ba xale yi kontaan nañu ba mag yi kontaan nañu te def nañ ko biir jaxaaw mooy ministère de santé bi tey mais président moo ko tàmbali amul kenn ma ko fi indi c'est le président Macky Sall moo ko fi indi donc président mu ngi liggéey en tout cas ñun mouvement ànd soxla Thiès à allure tey fedd nañ suñu colère mbokk dinañu liggéey incha allah si liggéey sincérité si liggéey dëgg pour lan pour Thiès jëm kanam li may wax rek mooy mbokk yi nous laqatuwuñu son excellence président Macky Sall Nous ñuy Nous dañu nous diko jappalé ci parce que président mu ngi liggéey nous ngi émerger ñun nak nous bëgg émergent aussi que Thiès waa gis que cees mu ngi émerger si loolu la ñu dox moo tax incha allah rabbi si wàllu formation yi si wàllu jeunesse bi si wàllu magee du leen fàtte li may ñaan rek mooy mbokk yi allah li may wax mon frère Thiey on sera toujours ensemble xanaa politique du ñu boole de am na leneen lu ñu boole lu politique li may ñaan rek mooy balaa may tàmbali rek damay nuyu ñii nga xam ne ñooy responsable politique Thiessois yi nañu nañu wax problème Thiessois yi ñu bañ seen problème bopp. parce que Thiès moo ñu ñor képp ku xam ne ku ñu fol da nga am ginnaaw en tout cas mon frère Thier di nga xam ne ay góor nga seqal ak ñin nga seqal comme ni ko toujours nit di waxee ku la dig ndekke jox la añ bu la diggee reen nga gëm ko ñun si loolu la ñuy dox mon frère. incha allah dinañu jàpp jëpp lu ñu def dinañ si waxtaan askan bi dinañ si waxtaan askan bi ki démb rek ñu ngi wonte benn formation à leadership di lan di former ñi suñu membre de bureau yi pour bu ñu toogee bu ñu demee si jataay yi man toujours may wax le mouvement entre Tok Thiès et le mouvement à lire on est on veut être des gens plus proches de la population nit ñu xamna tay nga am naqar nga am banex dañu bàyyi gis ñi yëpp ñoo seet si la en tout cas li mo fait contact na ci lool li may ñaan yalla rek yalla ñu yalla taxawal yalla jàppale ñu li nga xamne manam mu un président jëm kanam li may ñaan aussi pour la jeunesse moy ñun leen di ñaan moy ngeen dem mérité sen carte képp bu xam amul carte d'identité na nga fexé taxaw bo ñe mouvement and sax pièce mi ngi prêt mi ngi ñaan préparer temps yi ben audience transféré ku jàppale ñi nga xam ne amuñu képp ñam carte d'identité li ma ñaan mbokk yi mooy ñëpp nañu fagaroo jappando dorondo footballolo demandoo ku président am ndam au premier tour en 2019 loolu laa bëgg auzu billahi mina rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante ñu ngi julli ci yonentem bu tedd bi di gërëm suñu ñaari wayjur di gërëm suñu wayjur bu góor bu wér a ndax tey mën naa wax ni natt bi dal ñu muy politique ginnaaw yàlla moom la lëg nag boo lekkee olom da koy gërëme coy maa ngi ñaanal suma baay boobu yàlla na ko yàlla xare ak jàmm maa ngi nuyu képp koo xam ne teew na di gërëm suma ay dëkkandoo di gërëm suma ay xarit di gërëm ay délégation yi nga xam ne jóge nañu fu ne ah, mënuma ñàkk a tudd ay tur naam dégg naa olof naan kulim da ngay waaye man damay naan déet kulim da desal am ñoo xam ni dañu particulier ci man euh, aw fay maa ngi lay gërëm bu wér a wér taxawaay yàlla na la yàlla fay xali euh, ndong bi suma jarbaat maa ngi koy gërëm bu wér a euh, ak ñi mu àndal ñëpp maa leen di gërëm sama xol dafa sedd ci ñoom parce que bis bi dañ ko jël defal ko seen bopp ñoo ma yeer fi ma doon fi ma doon nelawee di gërëm aussi waa Aiglon maa leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ñoom laa dëkkal di gërëm sumay mag samay mbokk bopp di gërëm sumay rakk di tàmbali ci ci gën a ndaw ba ci mag di gërëm ko ndoy di leen balu ak bu wéré wér dama né bo dé wax di tuddu ay tu da ngay déssal mais dafa am ñu lo xam ni kenn eh, mëna ko koo bañu wax ndax dama yaakaar ni soxlu tuweer bu buuxante ñun dañ ci ay jeunes am ñu dudul jaxaw dama dégg légui suma sœur di wax benn mbir yalla suñu borom lepp lu xew fekk na yàlla nañu yàlla lafal cat yàlla defal ñu càmm ngërëm li mënagul jeex parce que damaa am koo xam ni suma sëriñ la suma xarit la suma mag la muy Cheikh Ablaye Gueye kooku bu ma dee tàmbal ci moom du mën a jeexal parce que lépp lu yàgg dëgg la xam nga dëkk dafa jafe dëkk dafa jafe Ablaye bi ñu dëkkee ëpp na juróom fukki at mosuma kaa dégg ci naka suñu lool géey fi nga jàpp foofu la yow tu es un éducateur nga ku ne exemple nga dans ce quartier yal na la yàlla jàppale di nuyu suma frère muy sëñ Ndigal sëñ Boubacar suma rakk la suma sëriñ la suma xarit la ndigal maam as yàlla na ko yàlla fay tey comité Mandeng bi nga xam ne dañ fay ñëw samay mbokk bopp lañu parce que képp ku naan Inco man dama ca bokk kon comité boobu man ca laa bokk te dama yaakaar ni euh, lépp lépp lu takk ci nit bokk ba ca tànk ya ca la bokk kon tey fi tey dañuy ñëw sànq man leen dinaa leen wax lu ma waxul kenn parce que ñun ñoo bokk li ñu bokk kenn mënuñoo tàqale Astou Guissé dafa am loo xam ni mënuma ko ñàkk bañ wax parce que ragal péete dafay xañ a wërsëg bu ma nuyoo pa paagay ba pare

j'ai plusieurs raisons pour moi. Dans dama ne tey gars politique, dans une carte dañuy c'est buum Voilà, tànk wala ñu yëkkati def say poos ne la dee ñu waxal man duma waxal kenn man dama gëm sama bopp xam fi ma jëm moo may def ñi may def dafa am koo xam ne dafa takk ci man nekk suma suma suma ki may wax docteur Amadou Ndiaye suma mag la suma xarit la suma wëllëre la dañoo seq lu bari man nañ koo défendre koi parce que dañu nekk ci pays boo xam ne boo laajoo ñu fàtte la mais il mérite il mérite beaucoup yàlla na ko yàlla fay xolam il a beaucoup fait Habib je te dis que nii c'est un grand boo xam ni dama koy wax ñëpp di ko dégg man ak yow sa tànk ak suma tànk ba ca moom ñu dem waxtaan ak moom fas yéene ànd ak moom liggéey parce que ñun dara ñoruñu loolu président Macky Sall mouvement Alir bi nga xam ni tey man moom lay diriger di ko jiite mi ngi san mi ngi sampoo ci 2015 ci mois de août ci bésu 29 août ñu koy taxawal di ko doxal mën naa wax ni tourba président Macky Sall mo ci yok libéral parce que man sama mouvement alliance libérale pour la république le tudd moom ma tudd alliance pour la république man maa ci moom libéral dama tok ak ay nit ñu nekk ay responsable politique wala ñu jàppale président Macky Sall man bi may dem référendaire dama ne je suis libéral mais je vote oui pour la libération de notre frère Karim Wade pourquoi moom parce que dama lay wax ni and ak Macky Sall du tee ma wax ko dëgg ànd ak Macky Sall du tax may wax dëgg man dom libéral la suma papa libéral la ma and ak Macky Sall nek libéral ñu dem ba certain moment mu sañ parti ma and ak mom mais sukkat la té yóbbaale say om il faut être bien dans la vie. Ça, c'est très important. Moi, je me demande de et eh, il y a aussi son excellence digne ah, de vos message de l'or de Yalana, Masha'Allah. Nous, du bloc, qui t'a dit moi, ça m'a dit que je fais je suis avec moi. Pourquoi moi, ça me dit que je fais Ah, Avec bien, Avec est un homme de social. Amim Habib qui a beaucoup fait dama lay xool rek yàgg dafa lay parce que tu n'as rien d'un politicien nit nga koo xam ne da ngay defar te yàlla tax li ngay defar lépp xamoo leen mais jëf jëf jëf joo gis am na fay mais yàlla na la yàlla fay sa jëf ji damay lancer aussi benn appel au président de la République du Sénégal son excellence le président Macky Sall bi nga xam ni moom la ñu bokk ñun ñëpp mu teg loxo le jeune avec ñoom pourquoi il a beaucoup donné pour la raison de Thiès. Thiès dafa di dëkk boo xam ne dafa naqare politique mais lii nga am ci Thiès abit yow rek yaa ko am dara nañ la ko dul sa jëf parce que yàlla suñu borom jëf rek lay fay. man cee dama di nit koo xam ni du ma ne mukk nit yi yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko Habib xam nga lu ñu boole ngor

je dis encore une fois bu ma ñemee taxaw fi nga xamné sama buntu kër la kon li may def ñeme naa ko te mën naa ko. Habib je te dis que ni bés ni que tay fu la neex jaaral. waaw je suis prêt pour jakarlo ku mëna mën ko nga jàll. ci mom la inna m'a jamais dit Dieng buy wax ak man sax danaan ma gram kii li ma am gëm na ni Habib mënoo ñak dara damay dégg ñu naan borom ndey ju baax du fanaan àll mukk mais je te dis encore une fois parti bi ñu nekk y a trop d' obstacles mais je te dis que man maay nekk ci kanam dinaa la dindi obstacle yëpp parce que je suis prêt pour même joxe suma bakkan pour nga jàll ça je vous le séntu weer soxlawul buuxante son excellence le président Macky Sall bilan rek doy na kon yaakaar naa ni ak li nga xam ni jëf li nga xam ni les mouvements ñu ngi koy def rawatina yow Habib moi je dis que ni Habib qui est national Habib yaa ngi def yaa ngi dimbale néew di doole yi yaa ngi dimbali ñuy feebar yaa ngi joxe yoo xam ne sax ni ñu xam ñu ko di fëgg nit bàyyi ba xaadi ko di nga fëgg ko ci sutura jàppale ko awee li ngay def ci jumaa yi li ngay def ci jàkka yi li ngay def ci école yi église Habib moi je te parle très sérieusement am na léegi suma benn grand frère bu taxaw génne benn carnet de santé yàlla na yàlla fay lii duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi encore une fois damay delluwaat cant ak ngërëm di ko jëmalee képp koo xam ne déplacé nga pour ñëw ci yëf yi comme ak ñu ko waxee. luy 16 yomb na lool. waaye amee nit jafe na lool te yaakaar naa ni amul kenn koo xam ne dañ laa jox juróomi dërëm pour nga ñëw da nga fee ñëw ci gëm li ngay def wala gëm ñu tax ñu nga war a déplacé wu. kon encore une fois ci sama tur ak turu Habib Dieng ak turu Abdou Guissé ak turu Cheikh yi géey ak turu képp ku fi nekk ak ñëpp ak mon ami et frère euh, Ali Mbaye parce que damay wax naan meloñ bu lekkee xolam na ko jure mel coñ xam nga lu tax ma dama di wax dama di wax dama di wax dama di wax ci Ali Mbaye Ablaye danga may may parce que Ali Mbaye dafa di kenn boo xam ni man ak moom ëpp na 15 ans ñu seq terrain politique bi di jàkkaarloo di jëflante ma xam li mu man ma ñëw fekk ko ci abib ñoom xam nga lan mooy doomu aadama valeur valeur mooy doomu mooy doomu aadama bu fekkoon ni tey dafa siis wala mo am nu mu mel su ma ñëwee mu dee Habib ne ko mooy dul waaj Ali je te dis que ni man ak yow yoon bi gudd na te incha allah war a di dinañu daje maa ngi nuyu aussi sama jigéen damay gàttal sama jigéen koo xam sama partenaire la woon ñoo doon ànd di politique Euh, je vais nommer Virginie tey moom moo nekk secrétaire général ànd Suxali Thiès sama jigéen la ah fi may tëjee mooy daj dëgg ji parce que toujours euh, ah non maa ngi tëjee ci sama secrétaire général Lat Koumba Dia es infatigable. parce que mën naa ni mouvement bi di yëpp laay def bés bu jot rek ma wax laat maa ngi lay gërëm di la sant ñu bañ a ñu bañ a guddal parce que wax dëgg yàlla Euh, maa ngi lay gërëm bu baax kon di gërëm it sama vice président Caba Ndoye bi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñooy liggéey lépp Caba yow démb laa la bind benn message public publié ko ne la Ndoye Mali Madame Ndoye yow xam nga ni góor nga géer nga te nga jërë ngeen jëf asalaamualeykum waa Jaxaaw maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam samay nuyoo maa ngi ko jëmale ci suñu kilifa diine yu baax yi teew fii ndax nee nañu jetaay bu rafetee Mak yati neke Kon sou nou ki li fejineyi Yal na len yal ta ha ou Ningen ni ta ha ou bou ba ha ba Bay len ti sou nou kanam gen nye gounge bou ba Souman ti nou pe mangi nou you Sou nou prezident mouvement andou sou kalit ches Di monsie Abip Nyan Yal na yal yoku ayi werem temay kon wert Sou machi noupe mangin nou yu che Kwa te di Do moun dayou abib nigen ko wakhe Moun mi Te di prezident Mouvement R Te nedina nyo djapale Abib Boka ak moun nou ligay Ndak nyo boko djemoukay Sou nou djemoukay moun fan te Moun djapale prezident maki sal Kon che Te yi nou yi ley de lon gerem bi Yomi di netay, di nga jel se mouvouman, bole kwa ak mouvouman abit, pou ngen nyou bok ben di jemoukay, diligey, kontyey, dalal nan neti mouvouman abit, dalal jaman, te yal nan nou yal la tahawou, ba fete nou, finle mouaron fete nou nyep. Bouman fa fete, di nan nou yon seman yay, di mer asou gise. Vreman mama, mersi boku, ti kolore bi nga am. yaa ngi ñuy taxawu bu baax a baax Ali mbay aussi suñu free maa ngi lay nuyu di la gërëm waxtu bi def ñoo xaw a tënk waaye waa population jaxaw ñaari kàddu rek laa leen di wax am na mag ji doon wax ne démb wax naa ko dinga nga am nit ñoo xam ne dañuy ñëw pour nga servir leen dina am nit ñoo xam ne dañuy ñëw servir leen yéen Il y a un serviteur et quelqu'un qui veut venir se servir mais Habib c'est quelqu'un qui est un serviteur de la population de Thiès donc moi je dis à la population de jahao Habib y a waxal sen Sen kilifa Habib mu ngi jàppale yi la valorisation des femmes Habib mungi Diapole, le programme Moi PSE bi bi Macky Sall au Sénégal Habib mungi Diapole, la CMU c'est-à-dire la maladie couverture maladie universelle te Lolu, yéen a ko séddee sen bop ndax na léegi ko fi cédé, génnee na carnet di Wanene, ne ku la jox passe 1500 2000 nit kooku jàppalewu la mais jël carnet jox la ko ne la demal faju fajal la at boobu kon da ngeen a war a gërëm tey Habib kooku moo ñëw pour servir leen mais ñëwul pour ngeen servir ko leen rek laa leen di ñaan la population de Diakhao Habib yaakaar naa ne wax ngeen ko ci seen wax desalute leen dara lan ngeen ko war a desal mooy

kon nag loolu laa leen di dénk la population de Diakhao di leen gërëm te di leen sant te di leen ñaanal yàlla yàlla jàppale ñu ba ñu am ndam. bismilaahi rahmaani rahiim tey dañuy sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñii rek lañ doon ñaan ndax ñun danoo amul kenn ku dul Habib Niang Habib Niang moo ñu jaral lii Habib Niang mooy mbayoo di Fuuta. mbaloo di foto mooy jàmbaari foto, lii bu def Fouta la ko jëkkee ca dëkk ba mu dëkk doog a ñëw Thiès gii bi mu ñëwee Thiès nag dafa ne waa Jaxaaw yéen a ma ñor waa Thiès ma ñor président de la république tànn ko andi ko teg fi mu samp mouvement mouvement bi amagul cinq ans cinq mois wala xam ci la yem mais macha allah abi moo neex a bëgg koo ne abim ñaar rek. day yàkkamtee ndaw ñoo fekk si la mën nañoo lee ay chaise mais kenn mënu ay nit tey macha allah ñëpp ngi bàyyi seen kër ñëw fii ngir yàlla jëmi Habib Niang Habib Niang ndek ci groupement des femmes yi macha allah suñu koñ bi ba ba juddoo ba léegi yàgg na mais suñu koñ bii jigéen àndandoo di liggéey te tey Habib Niang moo ñu def tey ba tey ñoo ci ay millions jigéen ñaa ngi toog Habib Niang mi ngi ci poste moo investir def 2 millions 800 mille def ko ci poste de santé bi jigéen ñaa ngi faju ak seenu njaboot kooku ab ñaar ku fi indi musuñu koo am Habib Niang moo nekk ci école yi macha allah macha allah 2000 bëri bu fi nekkee lim gënuñ lim mais Habib daal dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér. ña ngi liggéey liggéey ci biir Sénégal gi yàlla na ko yeggale mi ngi topp nag ci réalisation yi nga xam ne moom la Macky Sall def liñ ñu ko wax feeñ loolay waxu dëgg. maa ngi gërëm nag kii sama frère. di sama ju bokk lépp ndax mu mënoon naa ko wax problème mu Habib mu du ma ko def mais dafa d' accord accepté ndax gisul baax li muy def mu jël ay mouvement mépp ñu fa yéene ànd ak moom topp ci ginnaaw Habib Niang loolu borom xol bu baax rek moo mën loolu ndax xol bu baax moo mën a nangul boromam lu baax ba tey ñu si def journée bii di gërëm Cheikh Ablaye Gueye mënuñu ko fay. sag la ci jaxaaw fierté la ci biir jaxaaw macha allah gay yow baax ngay wax ci nit ñi ci la nekk ndax tey bu ñu ñemee fii ci koñ bi yàlla ak sa tax bi nga boole di ñu encadré di ñu ñaanal bàyyi woon nga politique toog abim ñaa moo tax nga dellusiwaat ci politique ñu ngi lay sant di la gërëm di sant waa koñ bi di sant Ali mbay mi nga xam c'est mon frère ba may soog a jóg Ali laa njëkk a àndal mais macha allah waruma sant naa ko di sant Pa Gaye di sant Gora di sant Acca kulum da ngay juum mais mouvement bi ñëpp ma teg place jël ma nag ma ciy mag ni ñu teg ma ni seen yaay ñi ma Habib def rek la ma ñëpp def. di leen jox seen wàccuwaay di leen remercier bu baax di nuyu le président Habib Niang mouvement ànd suqali Thiès. maa nuyu aussi kilifa diine yi fi tok di len ziar bu baax baax di nuyu suñu mouvement bi tuddu Alir Bo xam créé nañ ko depuis ça fait des années mais suñu président di Thie Kouyaté donc ñun dañ ñëw uniquement aujourd'hui pour feddale suñu kóllëre sax laay wax feddale suñu colère avec le président Habib pour réélire Macky Sall 2019 Habib Niang nag li mu def si biir Thiès duma ko wax parce que damay bañ a repete ndax ñi fi jaar ñëpp wax nañ ñëpp. donc ce que wax rek c'est man sama wax principal accès sur les pièces d'identité et les cartes électeurs surtout ndax man xam naa ne amul carte d'identité une carte électeur pour voter pour réaliser Macky Sall il faut obligatoirement voter donc man li may wax dama koy accès uniquement sur les pièces d'identité et les cartes électeurs dama vous di ñaax ñi xam élection législative yi ñi jotul carte ñu dem jëli carte pour vraiment ñu am une victoire bo xamantene ne bu jour élection bi si fi jaxay ñepp né Macky Sall jall na si euh, président Habib Niane donc ma ngi leen di sama wax du bari damay ndax damay baña répéter ma ngi leen di gëreum yeen ñepp di leen sante bu baax di gëreum le PCA docteur Amadou Ndiaye di gëreum ah sama sama mouvement di alir sama président Thie Kouyaté sama secretaire général Lat Babacar Dia maa ngi gërëm tam sama waa kër waa kër maam El foofu laa dëkk maa leen di gërëm bu baax di leen gërëm yéen ñëpp waa Thiès wasalaam. Ndiaye mi ngi def liggéey bu instant Thiès groupement yi ci poste yi comme ni ko Obidien doon defee.

xam luñ bëgg ak fu ñuy def suñu carte la na dama ñaa aussi comme ni seur waxee aussi nañ teel jël suñu carte parce que aussi loo bëgg changé si tamoo carte électeur amul sens nañu suñu carte électeur soit ñu voté jox président Macky tour euh, premier tour bi mu am cinq soixante cinq pour cent gars mi maa ngi ñu fi toog ñëpp di nuyu tamit autorités yi fi toog li may wax xam naa ne moom du si bëri parce que lañu ñu war a wax yëpp wax nañ ko ba pare te affaire moom leer na ba pare li fi amoon moom cees dootu ñu nangu mu di fi am muy di lan tay la dëkk bi Thiès moom doomu cees moo koy liggéey te comme doomu Thiès a jug pour liggéey ñu ñëpp ci ànd muy maire yi jeunes yi lépp ci biir ñun étudiants yi ñu ngi ci ginnaaw Habib Niang jaareel ko sunu yaay ji merci beaucoup loolu laa ni woon dinaa leen ko yeggee ñu ngi ci ginnaaw ànd sukkali Thiès à cent pour cent muy étudiants yi nekk biir Thiès di étudiants yi nekk biir Dakar kon nag bis ni ki tey déggal nañ suñu kàddoo gi yépp suñu mama asu Guissé bis ni ngay ànd ak suñu leader Habib Niang ci kaw rek Macky 2019 incha allah. yii mu ngi nii yaa ngi dëgg boo feebaree nga dem faju ji man mosuma topp kenn politicien du ma la topp mais ki la jox lii jox na la lu nekk yaa ngi dëgg ñaar téeméer ak ñeent téeméer yorul kenn. lii at bu nekk ma at mën naa dem faju ji lu ma yàlla may ma jóg ci ñu sama bëccëg mais ay ñeent téeméer ay juróomi téeméer yorul nit man dugguma ci loolu abi Niang mi mosuma ko gis mu ngi nii tey laa ko mos a gis wóor na yàlla mais tey lépp lu ma mën a am jox naa ko ko sama carte moom laa ko jox dama bëgg ngeen nekk nit naxaate bi moo jex yaa ngi dégg nit ku nekk boo nekkee mag nekk sa kër mosoo liggéey mosoo dem fenn boo gisee ku la mën a jox liggéey nga dem jàpp ci bu ngay def ñëpp di dem dimbali seen kër boo amee saaku ceeb nga yóbbu seen kër mais juróomi téeméer yóbbuwul kenn ñaari fan ñett tey jii moo joxoon cent cinquante mille kon jeex na bu yàgg mais lii depuis décembre ba léegi ba déwén dama ciy faju